dalal ak jàmm Pape naa la. Eh, maa ngi lay di delloo nuyu aussi Kajoor Cissé. daleen ak jàmm la revue web dañ koy tàmbalee Kajoor ak ak ak ab homosexuel français bu nga xamante ni nee nañu dafa jënd lu toll ci juróom-ñeenti xale. te fii la xewee fii ci Sénégal. Mm-hmm. juróom-ñeenti xale cest à juróom-ñeenti millions la jëndee benn xale. <laughs> <laughs> ah un enfant waaw bi ngi noonu. Mm. loolu fii la xewee comme ni nga ko waxee Sénégal fii moom daa mel ni lépp fii lay xewee Seneweb moom moo ñu koy xamle. Mm. Euh, division euh, nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées muy kuréel goo xam ne moom mooy saytu wàllu njaayum nit. Mm. walla ak yenn mbir yooyu nga xam ne dafa euh, doy waar moom moo dal di teg loxo. Euh, homosexuel boobee nga xam ne doomu France la euh, waaye mu yamu ca ndax euh, bokk na itam ak yeneen ñeenti nit yoo xam ne ñaar ñi ay sénégalais lañ ay sénégalais lañu ñeenti ay sénégalais lañu bokk ñaar ñi doon mm. ay jigéen ci ñoom ñoom ñoo bokk doon tëgg lu ni mel waa ji nag moom dafa sëy ak moroomam waaye comme mënuñu am doom mm. te ñu bëggoon ko finalement nag ñu ñu ñu ne nañ ñëw Sénégal. léegi fii lañ koy utsee. da lañ ko utsee te demoon nañ ba jënd ko ndeysaan ba daal di koy euh, euh, am fas yéene ko yóbbu nag euh, ci sutura li nga xam ne moom mooy France. loolee nag euh, ba ko euh, limier yi xamee ci la ñu def seen euh, enquête ba daal di leen teg loxo weer wi ñu weesu ñoom ñooñu ñëpp nag daanaka yóbbu nañ leen placer leen sous mandat de dépôt ngir mën leen a àtte. fële ci Sandiara ab élève lañ fa daal faat. ki nga xamante ni jàpp nañ ne moo def jëf ji nag mu mel ni këram dañ ko daal di lakk. waaw loolee nag ginnaaw ba euh, ay moromam élève génnee. baare route nationale bi loolee démb la xewee woon foofa ca Sandiara ngir euh, daal di euh, fësal seen naqar ginnaaw ba ñu fàtte euh, seen xarit boobu yuyoo ci turu Malick Pouy moom nag nee nañu baax ki démb moom ca la génn àddina ndax nag li waral loolu mooy dafa am seen benn dëkkandoo boo xam ne moom dafa toog gis otoom di di saxaar ci oto oto dëkkandoo bi di saxaar mu dugg ci kër gi di ko jéem a fay dëkkandoo bi nga xam ne moom kase moo dëkk nag euh, mu yaakaar ne ay sàcc ñoo dugg këram ci la génne bal daal di koy tiire mu dee ci saa si mm. ñoom nag loolu moom moo leen métti ñu xëy démb nag daal di wutali euh, këru waa ji daal di koy euh, taal ngir euh, wone rek seen naxar waa ji mi ngi tudd euh, may sa Ngom nee nañu nag koñ bi. Mm-hmm. pas allemand la koy woowee ndax tàng diineem. SeneNews ñu ngi dikkaat ci accident bu metti bi nga xamante ni am na fële ca rond-point e démb la woon ñu di ñuy wax rek ne euh, accident boobu ginnaaw ba beneen accident njëkkee am ca Koungheul ba fukk ak juróom-benn nit ñàkkoon ci seen bakkan Mbour itam mu amoon beneen boo xam ne ñeenti nit ñàkk nañ ci seen bakkan démb amaat na tey fii démb amaat na ci Ndakaaru euh, ab accident boo xam ne euh, nee nañu lu toll ci. Euh, ñaar fukk ak euh, juróom ci ay nit ñoom ñoo ci daal di loru buñ sukkandiku euh, ci ki nga xam ne moom mooy capitaine Aïssatou Keita nekk commandant d'unité de la douzième compagnie d'incendie et de secours bu jëppal la mu xamle nag mooy vingt quatre yi ñaar fukk ak juróom yi ñoom dañu jële bon dañu da jële ay gaañu gaañu. Euh, si ñaa gaañu gaañu yooyu fukki yi daanaka gaañu gaañu yu grave la euh, treize yi ñoo nekk euh, blessé yu léger ak kenn koo xam ne moom dafa ñàkk bàkkanam ci boobu lépp jéeya. ñu wax ci inondation yi am fële ci Kenya. Mhm. lu foofu nag jàppale ne mu ngi lor. lu toll ci ay téeméeri nit waaye bi mujj bi moom lu toll ci ñeent fukk Euh, ci ay nit ñoom ñoo daal di faatu ginnaaw bu ab euh, taw bu bari demee ba mabal ab euh, pont foofe ca Kenya ñu di ñu xamle nag ne bërëb ba daanaka fan yi wala bokk weer wi yëpp daanaka ndox mu bari moom moo fay wàcc ba lu bëri ci ay nit Eh, ñu di ci faatu ñu ngi lim lu tollu ci eh, téeméeri nit yoo xam ne eh, faatu nañu ci ay inondation ba mu tàmbalee foofu ci Kenya ba léegi looloo waral sax ubbi teg l'école yi ba léegi ñoom ñu waroon ko def ba léegi mënuñu fexe ba def ko ndax taw bu bari mm-hmm. seen zone boobee nag nee nañu Euh, dëkk ya mu peggool yëpp daanaka même situation la ñuy dund ndox mu bari mi ca Tanzanie nee nañu lu toll ci téeméer ak juróom euh, fukk ak juróomi nit ñàkk nañu ci seen bakkan lu toll ci deux cent personnes nee nañu ca Burundi foofe itam euh, ndox mu bari bi lëmbe na leen nee nañu boobu ba léegi nag ñu ngi koy dund ba tax na njiitu réewuma Euh, ki nga xam ne moom mooy euh, njiitu réew euh, Kenya di William Ruto moom dafa dal di xamle Euh, ne euh, sàkku en tout cas ci euh, service national yi ngir ñu ut ay terrain yoo xam ne dañ koy def mu nekk ay camp yoo xam ne fa la ñuy dalalagum ñi nga xam ne ñoom ñoo loru ci ndox mu bari mi ci réew mi su ko defee bu yëf yi jàllee ñu xool nu ñuy def ak ñoom. jërëjëf Kajoor ñu jaajëfal la bu baax a baax <clears throat> excusez-moi xibaar yi am na solo alors Sénégal fii moom dañuy jaay xale wala. <laughs> ba tax homosexuel bi jóge dëkkam ñëw ba fii di wut xale bu mu jël. lépp la ñuy jaay Sénégal fii. ñu jaay nit. <laughs> lépp la ñuy jaay <laughs> ba bëggee dégg-dégg rek lu waaye bëgg rek ñu ngi koy jaay fii ci Sénégal. non heureusement nañu waaw on a on a des forces de défense de sécurité yu vigilants yoo yoo xam ne euh, vraiment am nañu xarañteef bu àddina wërngal képp. Mm-hmm. nangu moo tax nag nga def fi dara bëri ci nga xam ne mbër dëgg nga parce que am na certaine mën nga def benn ñaar ñett. nga génn ci mais soo koy continuer au de quelque temps dañ lay jàpp parce que souvent ñoom ay réseau la ñuy nekk ñu ngi lay wax ne euh, c'est cinq personnes en dehors de de de ce français là il a cinq sénégalais yu ci bokk donc ñëw na voilà bu <laughs> nekk di nga am loo si jot donc euh, en tout cas no forces de défense de sécurité ñu ngi fii xel nit ñi nañu nañu gën a nañu gën a bàyyi xel rek seen njaboot bon évidemment ki ñu jënd moom ay waajuram a ko jaay loolu tam beneen cas la ci yi ndax euh, bon Euh, am na ñuy sàcc aussi di jaay. ndax sàccum xale yaa ngi fi sàcc dajale xale yi fenn di leen jaayandu loolu yëpp c'est des situations yoo xam ne ndóol gi na ko indi euh, di jur di sànni Sénégal de doo soxla ngay jur di jur jur jur jur rek di teg finalement yow li ngay jur yow mënuloo ko. toppatoo te on un gouvernement jusque-là boo xam ne dafay bàyyi xel loolu ci condition des enfants loolu mooy waral tey nga gis ci mbedd mi fees del ak ay xale yoo xam ne ils sont à la merci de toutes sorte de de de de de de, de perversion mm-hmm. euh, te loolu noonu ñàkk protection boo xam ne xale yi dañ leen ko war a jagleel loolu moo koy indi parce que mm-hmm. ku am fit di ñëw dugg fii di di espérer di jënd ay nit wala di espérer di ñëw di jaay ay nit wala di ñëw di jël ay xale di leen dajale fenn pour fas leen mën a yóbbu dem jaay xam ne euh, les enfants sont laissés à eux-mêmes au Sénégal nañ ko wax rek te dee mhm. donc mhm. on s'occupe de de tout politique yeneen mais la cause des enfants loolu des na trop pour ñu lijjanti ko il faut vraiment une bonne politique pour vraiment protéger les enfants mm. euh, Pape bon bu ma doon euh, wàcc dama romb ci côté Almadies yooyu noonu mu gis ñaari xale bu fay ñett lañ sax mhm. bu bu ñu amee ay trois ans deux ans trois ans yooyu ci lay yem ñu tëdd ci mbedd mi di nelaw ñu nelaw waaw euh, plus loin bon koo xamante ne je sais pas moi mais njort naa ne moom mooy seen yaay mu ngi toog foofu noonu yor sio di yelwaan mais man pour man loolu bon image bu catastrophe la parce que un enfant am nga droit à la santé droit à un environnement sain droit d'être protégé mm-hmm. alors que bon normalement xale yooyu noonu dañoo war a ñëw jël leen yóbbu leen ci centre yi nga xamante ne foofu la ñuy jubbantee xale yi wala foofu la xale yi nga xam ne dañu am abri yooyu par exemple ci mm-hmm. condition yooyu ñuy màggee après bon conditions yi day day waar lay lay lay jur donc pour man le travail n'est pas fait bien que sax boo xool la plupart mun nga wax ne ñooñu ay étranger lañ mais même su fekkee ay étranger lañ sax amuñu droit amuñu droit di leen bàyyi noonu ci ci ci mbedd mi euh, am na ministère de la famille Euh, am na benn liggéey bu ñu commencé woon doon ko def ci par rapport à dans ce sens là mais mais xaw ma xam bon travail bu fu ma parce que waxoon nañu récupérer nañu xaw ma mille xaw ma xale. mais mais mais euh, pour pour man daal bon il faut. ministère bu nga xamante ne boobu je sais pas man si kii si attelage gouvernemental bi boobu ministère de la euh, de la famille dafa mel ni moom mooy yore mbir bi bu léegi mais c'est pas amul ministère par exemple boo xamante ne comme su Macky Sall nga xamante ne dafa amoon ne Euh, l'en ministère de l'enfance wala benn département boo xamante ni jagleel nañ ko je ne sais pas sûrement am na benn service boo xamante ni il s'occupe de ça mais quand même direction de la petite enfance au sein du mais ñu jox leen mais ñu jox leen ay moyens yu nga xamante ne dinañ toppatoo xale yi bu baax mm. xool ci mbedd bi ñoo xamante ne euh, mère de famille boo xamante ne da nga toppatoo sa doom euh, ñu gis ni ni nga yoree sa doom am dëppoowul ak règlement ah? yi mais ñu jël ko yóbbu ko si centre yi parce que mënuloo yor xale boo xamante ni deux ans trois ans mënul sa wax par exemple et puis yow nga koy bàyyi muy nelaw ci mbedd mi xam nga di defee lépp ci mbedd mi loolu c'est inacceptable donc pour moi loolu c'est un échec total quoi que ñu mm-hmm. nga ñëw Sénégal nga gis ay xale yoo xamante ni ci mbedd yi la ñuy taxawaal di tambaamalo comme si amuñu ay parents mm-hmm. wala sax suñu amee ay parents seen parents yi muñ ne lu topp dañu jël ko ci ñoom yóbbu ko leen ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy centre de rééducation yi des enfants maintenant si ñi nga xamante ñooy def ay trafic loolu si dëkk yëpp la am. mais mm. tamit que les gens soient vigilants. xamante ne bon euh, bépp xale daal dina si dina si mën mucc quoi parce que parce que mbir moo xamante ne yàgg ça fait presque des années. ñu mm. ñu si wax. te saafaroogul ba léegi. doy na waaw on espère on espère que ak gouvernement bu yees bi dinañ ci jël ay euh, matukaay euh, Kajoor accident bu métti bi nga xamante ni am na démb ci rond point EMG bus bi bu gisee état bi nga xamante ni. Euh, ci la nekk man je me demandais mais comment est-ce qu'il fait pour vraiment mujjee fi mu mujjee nii. et puis et puis foofu diggante boobu lan la fa nit lan la fa nit mën a dawee lan la mu nit mën a dawee foofu noonu. ci ci diggante boobu avec allure. Mm. xam nga parce que boo xoolee euh, foofu xat na foofu xat na euh, bëri na ay ay bëri na circulation donc normalement waruñu mën a daw yenn allure parce que boo xoolee nee nañu oto bi da doon daw ak allure de oto yi dafa vétuste boo xoolee tata yi léegi da ngay gis ñu daw def ni ay carapace gis nga caracas total la mm. donc il faut que ñu rénover li nga xam ne mooy parking automobile bi il faut que ñu rééduquer waat parce que boo xoolee même les chauffeurs mm-hmm. des Tata ce sont c'est les anciens chauffeurs de de de de des des dem dem dem dik enfin des cars rapides et et Ndiaga et autres. Mhm. donc y a aucune éducation par exemple boo jëlee ay dem dik ak yooyu ñoonu nga xam ne euh, ñoom par exemple dafay am benn formation boo xam ne moom la def seen seen chauffeur yi ba. Mhm. am na loo xam ne dangay am responsabilité. si si kaw si kaw tali bi yaa ngi yeb ay ay kii donc c'est c'est c'est tout un travail qui doit être fait defe naa assise sax war na à chaque fois mu am problème nga gis ñoom ministres yi yugur yugur yi dem foofu euh, def constaté après ñëw de jël euh, ay décisions à deux mm. bal après yoo xam ne du duñ ko duñ ko respecté euh, c'est y en a marre en fait parce que nit ñi ñu ngi continuer di dee si si mbedd mi et c'est c'est dommage li ngay wax ni dama la siy tegal contrôle bi nga xamante ñu ngi koy def ci oto yi muy les visites techniques yooyu noonu yëpp aussi war nañ ci gën a farloo bon euh, on on a on, on toujours de ça affaire accident yi bon essayé nañ jël ay mesures bu nga xamante ne 2023 fin 2023 amoon na ay accident yu yu métti yu terrible. Mhm. Euh, ñu déggaat tamit ni voilà amoon ñu gisaat tamit am na amaan na yeneen accident yoo xamante ne la semaine dernière c'était 14 morts. Euh, démb benn démb am na benn ay blessés yu bëri ak ak benn mort. bon qu'est-ce que xama xaw ma sax lan laa boobu ay mesures de toute façon mesures soo ko jëlee tamit man pour man ni dawal aussi tamit am nañ benn part de responsabilité quelque part xam nga sooy dawal aussi da xam ne ay nit nga yëpp nga jéem daw nànk xam nga euh, jéem a sàmm bañ def course keroog maa ngi dugg si benn bus mais bus bi ma dugg mm. ñu ngi doon def course si kaw tali bi ñaari bus mais tu penses que loolu ah, mm-hmm. c'est responsable tu nga nekk si si tali bi am yeneen oto yi daw yéen yéenaa ngi course pour njëkkante entre les deux bus mais loolu moom mooy andi genre accident yi il faut que tamit nit yi ma man bëgg naa c'est bien que wax waaye moo état dafa war a def lii mais tamit bu fekkee ne jël normal su Macky Sall laa wax parce que ñii gars yi toog nii presque defaguñ dara. Mhm. mais su Macky Sall bon def nañ fi ay mesures intempestives wax dañuy def lii mais loolu réglé wul problème bi il faut que chauffeurs yi tamit ñu nekk ay nit. xam nga voilà jéem a daw. normal si kaw tali bi su fekkee da nga ne nga yëpp ay nit nga xam ne ay yiw nga mais ba ñu njëkkante et puis lu nekk ku nekk sa wërsëg ngay lekk si tali bi xam nga ji hmm. def loolu sa conscience ba nga xamante ne mais je me je me dis yi nga xamante ne moom moo am si kaw tali bi si accident de véhicule yi ñoom duñ duñu xalaat loolu. su fekkee da nga xalaat loolu mais war nga mën a daw nànk. bien nag am na chauffeurs yoo xamante ne ils sont très responsables voilà ils sont très responsables ba pare aussi tamit de la route et problème bi moom mooy bu fekkee yow da ngay def lu baax am na ñoo xamante ni sax yow tu vas dire que dëkk bi ay or la loi ñoo fi nekk donc man tamit je m'en foutisme laay def te loolu boobu c'est pas normal loolu mooy andi à chaque fois li nga xamante moom mooy moom mooy accident yi gën a conscientiser les gens et puis mm-hmm. pour man tamit chauffeurs yi parfois ñu leen def ay groupe di leen dem di leen yóbbu di leen former di leen conscientiser ñu ñu kii voilà loolu dafa baax parfois nga jël benn surtout les syndicats. Mm. les syndicats su pas ma xam kañ la ñëw fii ñu wax leen ko syndicats yi ñu organiser wu de telle sorte que groupement chauffeurs yi ñuy jël par vingt vingtaine par trentaine parfois chaque mois wala chaque quinze jours. ñu yóbbu di di leen di leen formé loolu dina baax de telle sorte que chauffeur même su fekkee jàngul yenn jàng yi sax. dina xam lan nga xamante ne moom mooy ay droit am ak ay mhm. ci client bi parce que tamit bu fekkee nekkul da nga yab nii rek lu nit nga koy def wala fu la neex ngay dawee donc euh, il faut que loolu yëpp ñu def ko man dama sonn si par exemple gouvernement dafa war a def lii parce que loolu sa résout aucun problème des fois nga nga dugg bus gis chauffeur bu indiscipliné des fois da ngay gis sax euh, passager yi da ciy am ko xam day xuloog moom man fekkee naa benn xuloo boo xam ne mhm. bi da doon maire bi du xuloog moom ci loolu. waaw non mais c'est. voilà et puis elle a raison. waaw elle a raison. bien elle a, sûr elle a, elle a raison. Ah, elle a raison on enchaîne rapidement pour parler de politique et d'économie léegi léegi bu bàkk bi noppee ñu dikkaat ci plateau bi.